rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafahu qawli mbokku internet yi ñuy suivre ci Lansar TV euh, seen mbokk seen xarit Ousmane Ndiaye ñëwaat na ci njariñal suuratul yasin yasin ñu nekkoon ci temps am ci programme bu am solo boo xam bëgg nañ ko ci développer comme ko nga xam ne boo suivre vidéo yi dañ lay indil série de suratu yaasin série di mooy aaya bu ci nekk ñu indil la ko ñu def ko vidéo yu gàtt mu mën a jariñ doomu aadama yi mën a jariñ askan wi ndax it xam-xam moom partagé lañ ci wax waxuñu xam-xam denc ma ngi dañ daan wax ni xam-xamle moo gën xam-xamle ay xam-xamle nag mooy nga denc ko ba dee kenn ko jariñoo amul sens tey xëy na lii may wax man jëfandewuma ko te xam naa ko mais su ma ko waxee dina am keneen ku ko jëfandikoo dina am ñeneen ñu ko jëfandikoo loolu la xam-xam di parce que li ma xam lépp lépp man mënuma ko def génn wàll génn wàll ga mënuma ko def te soo ko waxee xëy na dina am junni nit yoo xam ne mën nañ ko def donc loolu mën na nekk njëriñ li ci am solo rek mooy lépp luñ ci joxe na nekk loo xamante ni lu wér la na nekk loo xam ne lu yàlla barkeel la na nekk loo xamante ni tamit xëy na ku ko def gis ci ndam na nekk loo xam it defuñu ko pour ngistal nekk loo xam it joxuñu ko pour wane xam-xam ne dañ koy def fi sabilillahi ngir waa jaa jaamu ci yàlla rek ah, ndax yonent bi moo ñu wax ni sadaqata jaariya bokk na ci mooy joxe xam-xam boo xam ni e, bis boo fi jógee sax nit ñi dina ñaanal mooy xam-xam boo xam dina jariñ doomu aadama yi kon nag moo tax rek ñu ne nañ ñëw partager suñu xam-xam fi sabilillahi laajuñ ci kenn dara ma ko def ngir yàlla rek yàlla tax tey nag ñu indi leen benn aaya ci suratu yaasin wa inna na sax nuxriquma fala sarihum lahum wala hum yunqazuna aaya boobu lañu wax ni képp koo xam ni saxal nga ko ko ko saxal suba ak ngoon juróom-ñaari yoon suba nga jàng ko juróom-ñaari yoon ngoon nga jàng ko juróom-ñaari yoon di ko raaj ci sa kanam incha allah raay sa kanam mooy nii maanaam boo ko jàngee ba pare ëf raay sa kanam donc boo koy raay sa kanam yàlla di mucc ci pexem noonu di nga mucc ci pexem noonu te lépp luy mucculoo nit nag ci pexem noonu rek jar na di def parce que noonu dafa sew waaw mën nga nekk nit xamoo ko sax nekkati sa noonu la noon dafa bëgg euh, ki muy noonu toujours di féete suuf mu koy ree moo tax booy muccee ci pexe noonu rek. mën nga mucc ci lu bari bari kon ah, protection la bu am solo bu yàlla gërëm boo xam ne boo ko defee rek lépp alxuraan la mën nga mucc ci lu bari te mucc dara waaw kon loolu la leen indi loon tey ci suratu yasin di leen joxaa dig daje ci beneen aaya wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu